ku nekk gis na bi muy doon Serigne Touba fi mu fekkoon Touba ak euh, bi muy dem fi mu bàyyi Touba muy liggéey bu am solo waaye Serigne Saliou dafa nekkoon itam ab diplomate daan jëflante jëflante bu rafet ak doomu aadama yi nu Serigne bi daan jëflante ak nitu àdduna yi ci wàllu euh, diplomatie la ñu dugg foofu suñu soin bu jërëjëf Serigne kon da xanaa lu mel ne lu njëkk la rek dañuy dañuy indiwaat ay waxam sëñ bi dafa mat li léeg-léeg di fàttali wax yu am solo yu muy wax dane wan man day bu ngeen ma jiitalee mhm. ci jiital gii ma sëriñ Tuubaa jiital damay ànd ak yéen su ma jiitoo ngeen topp ci man ma di leen geesu waaye su ma demee ba gisatuma leen tamit mhm. damay taxaw nég leen su ma leen négee nég nég ñëw leen damay wàññeeku ñëw dab si jiitu jiital leen waaye duma dem mukk bàyyi leen waaye tekke lu am solo nag loo xamante ni li sëñ Abdou Ndiaye doon wax léegi ñu ngi koy sant bu baax ci kàddu yi mu fi jubal lu mat a la li mu wax na sëriñ Saliou mbakke ñu ngi sant bu baax sëriñ Soye bu Kébé moom soxna waala mi nga xam ne dafa bind téere bu am solo ci sëriñ Saliou waaye fi mu nekk nii téere ci sëriñ Saliou dafa war a bari lool ndax li mu wax noonu waaye man de bu ngeen ma jiitalee du ma def mukk lu yàq diine du ma def mukk lu yàq àddina du ma fekk mukk tamit lu suñ banam eh, yaatal ma xatal ko wax ju am solo ngi noonu joo xamante ne nii guddi ak bëccëg ci loolu la mas a nekk sëñ Saliou diplomatie dafa xàmmee li nga xamante ne ni mooy ab cëram ndax sëriñ bi dafa laa wax ne yaradiku mi ngi tàmbalee ci yar koo wërta yar waaye moom dafa xaman lim lim moom xam la dib cëram mën naa koy joxe misaal mu gàtt rek am na kilifa gu mag goo xamante ne nii yàlla da koo jox pouvoir yu rëy xër gum xër ci sëriñ bi mu ñëw ci moom ne ko man dey lii ma yor day damaa bëgg nga wax ma li nga wax ma ci li nga bëgg ma def ko sëñ bi ne ko man dey lenn rek laa bëgg mooy senegal gi nekk état laïque ñu dindi ko laïcité bi ñu dindi ko mhm. kilifa gi fas na fas na yéene fas loolu loolu ko sëñ bi wax fas na ko ba dem di ko nas ngir def ko waaye yuuxu ya ak coow la ca la la la ko ca daal di fekke saasa mhm. mu daw dellu siwaat dellu dellu siwaat ci sëriñ bi ne ko loolu day xam naa ne Mbàkke bëggan nañ ko waaye nag nangam ak nangam sëñ bi ne ko moo ne day gànnaar gi ñu sës ak ñun day français ñu bokkan yilif te foofu moo ne république islamique fa am de te lay laïcité amu fa daanaka waaye yemul foofu de réewum France boo demee Allemagne gam sësal foofa tamit laïcité amu fa wan na wan ko ci xam-xam ne coow li bëri na waaye lii lu mën a nekk la mhm. waaye nag sëriñ bi li mu wax ne suñu borom dama fekk lu mu yaatal ma xaral ko lenn lu ne day bàyyi jamonoom di ko nas ak di ko ñaan suñu borom mhm. ak di ko yar ci mbooloo mi nga xamante ne ni ëllëg mhm. bu ñu màggee ba toll war a doxal réew mi mën naa am ñoom lu sëñ bi def ci ñoom bu dekkee li mu bëgg dina ko am mhm. waaye nag kilifa kilifa ga new na ko waaye nag ba mu xamee ne loolu mënut a nekk waaye mu ne ko nag damay bëgg a def ab gouvernement bëgg nga jox ma ci ay ay ay ay nit ñoo xamante ne nii dañ leen ciy dugal sëñ bi ne ko loolu nag moom sant naa la ci ngir yéen ji waaye képp ku ko man ba mu doy leen ngeen teg ko fa muy liggéey réew mi teg ko ci teg ko ci yoon rek man la fa nekkal muy bëgg a dem waaye mu ne am na lu ma bëgg nag de ngeen boole ko ci dama bëgg naa daal ngeen xam ne diggante Mbàkke ak Bakel ci réew mi lañ bokk moom waxut boppam de moom ma ngay wax senegal profondeur mhm. mu ne ko diggante Mbàkke ak Bakel bëgg naa ngeen xam ne ci réew mi lañ bokk sëñ bi nag léppam ci wàllu diplomatie la ko tegoon tontom tontu xam-xam lay doon tontu bu ànd ak yar lay doon tontu bu ànd ak teggin lay doon dafa am kilifa gu ma a ñëw xam nga télévision yi tubaab yi léeg bu ñu bëggee ŋàññi dara seen télévision yi la ñuy jiital ngir ñu wax ci loola. dafa am télé bu mag boo xamante ni dafa defoon benn reportage di wax ne murid yi jaay ci mbedd mbeddi tugal yi. Mm-hmm. reportage bi daj àdduna ñu tekkee lu mat juróom weer rek. am kilifa tubaab gu mag dëkk réew mu tudd Luxembourg ñëw seet sëñ bi bi mu ñëwee mi ngi ànd ak benn avocat bu nekk ci réew mi tubaab la ñëw fekk sëñ bi mi ngi nuyoo ci mbaar mi mais bi muy sëñ bi nuyoo ci mbaar mi mu wax yitte ji am sëñ bi ci diplomatie ne nañ ko dalal sëñ bi bi mu nuyoo taalibe yi waxtaan ak daayira yi ba lépp jeex sëñ bi dugg ak moom nekk sëñ Modou Badar Diop daal koy woo mu ñëw kilifa ga toog keroog man mii la sëñ bi woo li mu daan wax ak tubaab bi man mi màkk ko doon tekki kooku nekk na ñun day sëñ bi li ñu li doonoon suñu yoon mooy parlement bu Europe daf ñoo sant ñu def benn liggéey boo xamante ne nii ci yoonu Murit ak Touba ndax dafa mel ni daal ñoom dañuy yebal seen doom yi ñu ñëw Europe topp mbedd yi di jaay. di daan seen doole di di di def lu nekk waaye xaalis ba duñ ko jariñoo waaye day ñëw jox ko seen kilifa yi nekk fii ñu koy def lu leen neex parlement bu Luxembourg ñoo ngi diggu ñu def seen reportage sëñ bi ndeysaan sëñ bi bala ngaa bégg rek tontu tontu tontu xam-xam ñëw sëñ bi ne ko man day jàng naa imi li ñuy wax immigration maanaam ay tukki jàng naa ko ne ko réew sàngam Espagne wax ko Angleterre wax ko Irlande ña njëkk dem Amérique ña jóge woon Italie dem Amérique wax ko wax wax ko xeeti nit ñi nga xamante ne nii mhm. ñoom bu ñu demee immigration dañu fay toog seeni njaboot fekk si leen wax ko xeet yi nga xamante ne ñoom bu ñu demee immigration dañ fay wuti dara ngir ñibbisi seeni réew mhm. ne ko nag damaa jàpp ne immigration ñaar rek ko tax a jóg mooy sàkku xam-xam wala sàkku alal Sénégal yii nag jóge fii di dem sàkku xam-xam moo leen fi jëlee wala sàkku alal lañ fay amee tamit dëkk bii ñi ko fiy indi dañoo dëkk ci dëkk bi waaye ñi nga xamante ne dañoo dëkk ci réew mi foofu lañ koy yóbbu ne ko dëkk bii nag ma lay xamal lenn képp koo xamante nii nekk na fi li gën a oyof ci yow mooy kër boo ko bëggee dangay dem rek ñu wan la ne dafay dëkkal kenn fayu fi ndox kenn fayu fi lempo ne ko nag li nga xamante ne nii moom laa lay xamal mooy man awma tontu bi lu wax jii mu ne ko wax jii du man maay sëñ Saliou maa jiite murid yi maa koy tontu yow yaa koy tontul sa bopp ni nga koy tontu la sa bopp mooy may naa la ndigal nga nekk dëkk bi fan yu la soob wut ñu la neex nga ànd ak ñoom kër gu la neex nga dugg fa bitig bu la neex nga dugg fa laaj leen ñoom mi tontu la seen bopp waaye man duma la tontu. wax bi waa sëñ bi bi mu ko waxee bi mu ko waxee wax ko wax ko wax ko bi muy dem carte visite bi mu fi bàyyi wan mhm. maître ma dikkee ñang mën na maa seere su déggee émission bi dina xam ne muy wax. sëñ bi dana comme dafa ñëw jóge ci parlement wu Luxembourg te mbiri yoon lay wax carte visite bi wool ma dikkee jox ko numéro tubaab bi. jëlal tubaab bi tamit jox ko numéro ma dikkee waaye tubaab bi bi mu génnee woowul ma dikkee woowul dara xam nga lu mu wax képp àndaloon. Mhm. ne ko parlement Europe dañoo juum lii maanaam képp kuy def immigration ci àdduna bi da war a ñëw di roy ci dëkk bu mel nii nii ñu fonke seeni doom ak nii ñu leen taxawoo ak ni ñu leen dimbalee bu ñu ñëwee ci seeni alal lu mel noonu nag sëñ bi bi muy tubaab yi taxawe taxawalee ay école ca Touba sëñ bi tere école ya ambassadeur France ñëw ci yeewu teg tubaab ne ko dama doon dem Daara Jolof jaar fi na naa la nuyu ca biir waxtaan wa nag mu ne ko waaye am na lu ma la bëgg na laaj de mooy lan mu ne ko école tubaab yi ma xam ne yi France yi nga xam ne damaa dégg ñu ne da koo tere ci dëkk bi sëñ bi ne ko man dey bañu ma njàngum tubaab ne ko Cheikh Anta ci borom xam yëpp réew ci wàllu tubaab la te bu daan jàngi lu bëri ca njaareem day daana jaar ci man tàngalal ma attaaye door a dem jàngi te boobal bu ma nekkoon bàyyil njàng mi mu bàyyi ko boo doxee ñaar téeméeri mètre que sëñ Cheikh Mbacke école tubaab ma fa boo xamante ne nii tey jii mu nee la mu tëj na tëj te tëjuma ko waaye ne ko man de ñaar dama koy jaaxal ba tax ba tax ma tëj ko Sénégal dafa rëy lool bëri dëkk yu bëri yu def demande ngir ñu wutal leen ay école tubaab kenn tabaxu leen ko fekk dëkk bi nga xam ne mosuñ koo def mosuñoo def demande ñu indil leen ko fi <laughs> boobu mooy bu njëkk bi mu ne ko ñaareel bi <laughs> mooy dëkk bu nekk yaakaar naa ku fay def dara di nga wax ak boroom hmm. te maay boroom dëkk bi te kenn waxuma ko ambassadeur bi ne dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dañ laa tooñ <laughs> nga xamante ne nii maanaam sëñ bi léppam ci diplomatie hmm. la ko teg ak xam-xam kon nag li sëñ Habib bu waxaan bi muy tàmbale hmm. sëñ Saliou Mbacke dañ ko war di waxtaanee ca ay jëfam sëñ Saliou Mbacké président de la république mën naa roy ci moom borom tarixa mën naa roy ci moom hmm. ab citoyen mën naa roy ci moom ndax sëñ Saliou maanaam lim indi ci réew mi ci jàmmoo jàmmoo kilifa diine yi ak def ba def ni boppam citoyen yi maanaam nga xam ne maanaam dafa woyfal boppam sëñ Saliou sëñ Abib sëñ sañ euh, Ndiaye li lim wax hmm. bu masaa bay gerteem ba gerte gi ñor bari lool ñu war koo jaay xam nga ne tuubaa prix bi ñuy bëgg jënd gerte moo gën a foor naka jekk état bi prix bi ñuy jënd mm-hmm. borom xaalis yi bu ñu ñëwee bëgg a fay sëñ bi fanweeri dërëm wala fekk état bi jaaye ñaar fukk ak juróom sëñ bi danaan moom rus na wuuteeg waa réew mi di jaayee fanweer waa réew mi di jaayee ñaar fukk ak juróom foofu patriotisme dugg na patriotisme mënta mënta mënta weesu loolu sëñ bi tamit ni mu doon sakkanele alalu yi ba bàyyi fi lim bi mu fi bàyyi lim bi lim bi du da koo tëj mu bàyyi ko fi de. Hmm. dafa liggéey ba mu des. li ma doon wax noonu compagnie américaine boobu ay millions yu du jeex leneen sëñ bi fay ngir ñu natt suuf si saytu ko. compagnie hollandaise boobu ndeysaan yàlla motali ko étude yi la jot étude yi la jotoon a fay waaye yàlla motalut mu fay liggéey bi waaye sëñ bi noonu la def ci jumaa yi def ci jàkka yi sëñ bi ñii ma toog ñëpp hmm. seere nañ ko. wallahi lancim sëñ bi wool na ma ba tey Mahmoudan Sëy mm-hmm. mii jaay ci buntu ko sëñ Mourtala sëñ bi ma demal ne ko mu lebal ma trente mille wala quarante mille yu wala lu mu fage soxlaam te ay millions nga murid mu tiim te xalaat ñemewu koo laal allahu ñaar téeméer yi nga xam ne moom la ko ay dongay boppam di nuyoo ñaar téeméer yooyu ndeysaan léeg-léeg kilifay diina yoo xamante ni dañuy ñëw di sàkku si ndimbal te fekk alali sëñ Tuubaa ñemewu koo jox loolu da koy defal léeg-léeg nga gis mu jox nit téeméeri junni mu doon ay ñaar téeméer ak ñeent téeméer fekk boobu moom loola la am waaye alalu murid yi du ko joxe. du ko joxe sëriñ bi da koo bañan ba nga xamante ne ni kees gi muy teg nii bépp alal joo xamante ne ni alal ji wóoru ko fi mu jógee du ko dugal ci kees gi maanaam alal ju lew domm xam fu mu jógee di ko saytu di ko nemmeeku am na benn bis am ku ñëw siyaare ko ni mu daa def xaalis yi nga xam ne da koy ber ndax sëñ bi ñaare koo xamante ne nii ak pal daa tax nga di ko jox loo xam ne daa ko jox ñaare xaalis boobu. day jàpp ne xëy na xëy na ci pal gi nga tax gi nga am ci mhm. nga ko jële ba daaw ko ba daaw ko dugal ci xaalis sëñ Tuubaa ndax bañ a lekk am bis nag ku ñëw jox ko enveloppe mu jaawale ko ba dugal ko ci kees gi mhm. fekkee da ko doon ber ndekete dugg na ci kees gi keroog sëriñ bi biñ demee bay wàññee xaalis bi mu doon ay millions xaalis boobu keroog dugal ko dugale ko ci compte sëñ Tuubaa bi ngir enveloppe boobu ki jaxasoo te kenn mënatu ko génneeti xaalis yooyu nag daaw ko sànni de xaalis yi ko mbuur yi daan jox ak yenn kilifa yi daan ko jox daaw ko jox ab murit sëñ bi dafa amal ñetti xaalis xaalis boo xamante ne du ko jox mu ko am murit am yoo xam ne sax dina ko jox du ko jox murit waaye dina ko jox keneen ñu ku mbokkal diine boo xam ne ko jox murit du ko jox ku mbokkal diine waaye bu fekkee ne dafa jógee ci état wala jóki nit ñooñu day fekk soxla soo xamante ne nii état bee ko war na def tey waa ngaabu ñoo ñu ne ko sëñ bi dañ ñun dañoo soxla courant wala dañoo soxla ndox xaalis booba lay jël mhm. jox leen ko ndax nee na loolu waa waa réew mee ko war na def ñu indil ko ko moom da koy def foofu dugal dugal ko fa mhm. nga xam ne maanaam moom dafa dañ saytu lépp lépp kooku nag sëñ bi université la oh. dañ ko war a jàng sëñ bi du ko ñuy wax naan moo fi def baatin bi moo fi def lii moo fi def lii sëñ bi weesu na foofu mhm. sëñ bi université la mhm. sëñ bi euh, maanaam royukaay la ci kullu fànnin booy indi nag li ko sëñ abi bu waxee mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri xam-xam mbiri jub mbiri saytu lu ñëpp bokk ak mbiru maanaam fulla bu jotee nga doxal fulla masla bu jotee nga doxal masla sëñ bi képp koo xamante ni yaa ngi moom yéen bokk lislaam boo ko nuyee ñaari loxo la lay jox képp koo xamante ne ni yaa ngi yaa ngi moom yéen a bokk lislaam booy dem addiye la lay jox képp koo xam ne yaa ngi moom yéen bokk lislaam booy dem day talal loxo ne la ñaanal ma maanaam réew mi tamit jaraloon ko loo xamante ni ci sacrifice ci ay sarax maanaam sëñ bi li mu daa génne sarax ngir réew mi ay gétti gileem gétti nag gétti xar di ko mm-hmm. rey ngir ñaan jàmm ci réew mi kirisu Casamance bii mm-hmm. labbe jamakun Senghor am na boo xamante ni moom mënta mënta ñëw rakkam ji tudd ber euh, Bertrand Bertrand jamakun la yebal mm-hmm. sëñ mi woo na labbe waa waa waa MFDC ngir waxtaan ak ñoom ak di leen dimbali ngir jàmmi réew mi loolu lépp nag dafa bokk ci loo xam ne dañ ko war a wane xam kan mooy sëriñ Saaliw sëñ Saaliw ni sëñ Tuubaa def nga xam ne dafa daan tubaab bi dafa bëreek tubaab bi daan ko ci xam-xam daan ko ci ngor daan ko ci jom sëñ tubaab mooy kenn koo xamante nii moo mas a xeex ak état France moom kenn moo mas a xeex ak état France daan leen jël bu toll bi mu leen daan daan bi lan la hmm. lépp luñ ko doon defloo mos cee def dara te moom lépp lu bëgg na def def na ko ba tey jii ambassadeuru Christophe Référin moo mu mujjee nekk ambassadeuru Sénégal bi nekkoon fii hmm. sëñ bi moom diplomate bi sëñ bi mujjee recevoir bu ma juumul mi ngi ko recevoir ci première semaine u décembre 2007 ci dernière semaine bi ci sëñ bi làqu bi mu ñëwee di waxtaan rek sëñ bi ba laaj di ko di ko laaj laaj yu bëri keroog man mi maaran maaran maaran maaran maaran yow mi fekkee nga ko keroog man mi maaran maaran traduire seen waxtaan mm-hmm. dafa laaj sëriñ bi ab laaj boo xamante ne nii yenn yi moom dañ koy bàyyee xam na moom xëy na moom buy bindub livre am wala dara dana ko ca mës a def dafa na sëñ a a mi nga xamante ne nii maanaam fi mu jaar ak tubaab yi. Mhm. ak fi mu fi mu mujj ñoom moom mi nga xam ne doomi sëriñ bi la dund loolu lan la ci retenir lan la jàpp ci relation sëñ bi ak tubaab bi sëñ bi ne ko moom day day mel ni ba muy jóg ànd ak ñoom la bëggoon ci am réewam akub dëkkam def na ko waaye nag teewul day ñoom ñam ko seqaloon ñoom day dem nañ ba sant ko waaye ñoom ne moom de mosu leen sant. yoonu murit nag foofu lañ toll fi mu nekk nii hmm. suñu mbokki taalibe yi nga xamante ni dañ leen di baaxee sëñ hmm. abi bu ni mu ko waxee hmm. bu ñuy waxtaan ci sëñ bi ñuy waxtaan sëñ bi li nga xamante ne amal na njëriñ doomu aadama yi sëñ la yi abi bu ni mu ko waxee sëriñ bi maanaam géej la xam-xam la ak ak ak ak ak ak ak lim def ci réew mi yooyu yoo mat di yoo mat di yoo mat ñoo mat loolu moo mat di wax di waxtaane di waxtaane di ko leeral waaye sëñ Touba day tey état France bi nga xamante ne nii ñoo ko songoon yërut lu rut xalima ak daa mhm. réew moo dem sëñ Tuubaa ña ko fa nekkal moo ëpp état France ña fa nekkal réew mooma tey boo demee tey Amérique consulat consulat consulat ya fa waa waa France am mhm. sëñ Tuubaa ko ëpp foofu ay kër nga dem Italie sëñ Tuubaa fa ëpp kër France nga dem nga dem nga sëñ Tuubaa fa ëpp ay kër France te dañ ne woon moo ne day du génn bawal ak mm. kajoor mm. waaye nag ci xam-xam ak fulla ak jom mm. sëñ Saliou yoon woowu daan wane xam-xam ak jom boole ko ak yërmande sëñ Abdoulaye Lam xam-xam fulla ak euh, jom euh, jëmm ju mel noonu nag dafa jaadu ñu di ko waxtaane di ko waxtaane ngir xam fan la ñu war a teg suñu tànk rawatina nag ci jamono bii nga xam ne nii euh, jamono bu doy waar la ni ma ko waxee rek ci ndorteelu jotaay bi